musique léegi dañ koy feetal yaa problème ñun feebar nañ musique nga xam ni même lee musiciens xam nañ ñi daganut lan mooy rôle musique dajale ñu bon am na walla amul yombal sàngara am na walla amut yombal njaaloo ban imam mooy jóg ne damaa bëgg sama imaan yokk ma dem concert ba am na kan ku gëm yàlla mooy dem ci concert pour yokk imaanam moom musicien bi xam na ne li muy def daganut tëggkat bi xam na ko gis nga daganut musique waxuma sax awaamu naas mais yenn ustaas yi ci am problème man ñooñu laay yërëm ñooñu laay xool ñoom est-ce que ñoom ñu ngi ñu ngi correct wala correctuñ waaw ndax ñii normal nañu wala normalu ñuñ naka la nit mën a toogee ngay taxaw commencé naan musique non nangam na subhanallah musique nga xam ni adduna bi caay-caay gi ci gën a yaatu musique a koy def wallahi ladi laa ilaha gayru borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni lépp lu bon musique a koy jur et bërëb buñ ñee dañuy concert ñan ñoo fay daje safa si fu naas ñi gën a yis ci nit ñi ñoo fay daje lan lañ fay def ndax lu neex yàlla la dedet fetch teug njaaloo drogué nan sangara def lu bon jaay sa bop futti sa yaram jaay sa personnalité perte sa jaamu yalla ci musique relam lolu tay dafa dem ba tubaab yi privilégié ko te li gëna doy waar ñew na ci hadith ibn umar képp kuy déglu loolu yowmal danañu baxal ba mu ruy sotti ko ci sa nopp wal iyaadu billah lan moo tax ndax yaa sotti woon ci sa nopp wëg maan di déglu musique ku bëgg sa ngëm yàlla sax da ngay moytu musique mbokk yi musique boo ci mang mandee mun ngaa dem màkka aji màkka léegi ñibbi sa aéroport commencé way parce que wax bi amul benn njëriñ amul dara lu muy jàngale parce que lan moo tax alalu seytaane la alalu seytaane la كو راغال يالا داكوي سبحان الذي اثرى بعبدي مبوكي ميزيك دا حرام